li jëm ci walu dara liñ ci bëgg def moy xa bépp xale bu wàccee ci kaamin incha rabbi dañ koy jox baccalauréat suñ ko joxee bac général mu def 3 ans de classe préparatoire jàng langue ak deux autres langues étrangères su ko defee loolu mooy permettre à 13 ans inshallah allahu rabbi mu mun a dugg université 20 ans mu am doctorat contrairement ak léegi nga xam ne vingt ans nit ki dafay dafay def au piir mu ngi def euh, mu ngi def baccalauréat am ëllëg liñ ci bëgg mu nekk doomu daara joo xam ne koñ gi muy dëkk mbubbu àddunaam bu nekkee ne médecin la magistrat procureur lu mu mënti doon bu tàkkusaan bu ñibbee këram wala timis bu demee ci jàkk ji mu nekk mu mën fa jiite nekk fa imam bu boobaa doomu daara danañ ko valoriser sëriñu daara ñu jël ko intégrer dans le système éducatif mu xam ne euh, fonctionnaire numéro matricule matricule di jël congé di jël vacances mën pension moo dana tax bu boobaa sëriñu daara dootul yóbbu xale et que ça nous permettra ñu régler le problème de la mendicité des enfants dans la rue